moom mi nga xamee moo la féewale ndax moo yónni ñun ab yonent boo xam la di ab yonent bu wóor ginnaaw loolu mbokk yi jaamu yàlla yi maa ngi dénk sama bopp di leen dénk li ñu yàlla dénk te te dénk ko boole bi ñu jóor loolu mooy suñu borom wax ne dénk naa ak ñi nga xamee ñoom laa defal téer yi dénk naa leen yàlla nag mooy jëfe ndigal yi bàyyi tane ci pas-pas ci wax ci jëf ci lu feeñ ci lu nëbb nanu xam ne àddina lu dëbb saxawaay nanu waajal dee te xam ne mi ngi ñëw kenn ku nekk yaa ngi gën a sa bi sallallahu alayhi wa na na ngeen di bàyyi lu ngeen di fàttaliku li màggu ba dana tax doo jàng jëm ci àddina te nu xam ne tey jii nag bisu jëf la amul rek la fii ci àddina waaye danañ dem nag ëllëg muy bisu rek la te amul jëf te suñu borom nee na mbooleem lu ngeen dawal ci lu baax da ngeen ko fay fa yàlla suñu borom nee na bu leen àddina nax bu leen war a kon nax suñu borom nee na li ma leen dikk mi ngi ñëw mbokk yi nanu xam ne yàlla bind ñu rek ngir caaxaan

ba noppi ñu dóor ci wuute ay digalam ba noppi dóor ci bakkaar loolu dañ ko dañ te ànd ak nag yàlla dara umb suñ borom daf ñëw wutal ay yebuwaay boole ñoom ay malaaka yu ñuy sàmm ak yu ñuy seet kenn ku am nga malaaka yoo xam lépp loo jëf ci lu baax wala ci fànn ñu ngi koy bind loolu lañ ko bàyyi xel mbokk yi mën nañu xalam bis ba nga xamee ne mbooleem njàng dañ leen di ci lépp lu mu tuuti tuuti dañ leen ci tàpp bàkkaar bu mag ak bu ndaw ak yëpp suñu borom leen ci ci tàpp yi bis ni ko tey di ñaar fan ak ñett ci koor ci la seet na at gane woon addina mu doonoon koo xam ne nii bàyyi xel xaasu ak wan addina ginnaaw ci la nekk ba jóge te loolu am nay kër daana wax ne àddina lu mu am ci man rek da ko fàcc te su ko defee fu ma sax nekkit mi ngi bàyyi xel baax am na bis boo xam ne nii màggalu Tuubaa mu génne ko sëñ Tuubaa di dem ci kër boppam diggante boobu màggalu Tuuba mu xat lool ba oto bi def na ay waxtu ngir mën a àgg fële diggante boobu ak li muy jege jege nit ñi di def kër kër wër oto bi sëriñ Cheikh Tolle mi ko doon dawal moo ko nettali ak Cheikh Abdou Gueye mu nettali ko sëriñ Cheikh Tolle dafa ah bàggee nit ñi de seen kër kër yi rek yow yaa ko mu ne ko ah yow de wuti naa ko xalaat man de mbooloo bu bare nii ak kër kër la may fàttali mooy buñ ma leen buñ ma teg buñ may teg ci ma jëmbal sama bopp la may fàttali kon ci ñaar yooyu la ku wéetal yàlla ku déglu ay discours am déglu ay photo am da nga gis wéetal yàlla am ci cër bu mag a mag di xam ne yàlla rek mooy kenn yàlla rek moo mat a jaamu na ngeen ko jaamu 1969 bi mu gën a jël ñu seet xëy na Fatma Ndiaye bokk na ci la wax ma leen waxoon bu maa ngi leen koy fàttali te loole ngeen di gis man ko faw te loolu mooy du jaamu ku dul yàlla du doon jaamu ku dul yàlla mbokk yi nan bu ñu jaamu ku yàlla doon jaamu ku dul yàlla jamono jii nag jaamu ku dul soo ko ñu yaakaar ne gis ngay wax wala bokkaale waaye bànneex yàlla dañuy jaamu adduna yàlla dañuy jaamu alal yàlla ñuy jaamu moo tax daana wax ne bëgg ak wóolu ak ragal ak yaakaar bu ma ko def pour yàlla fas naa sama yaakaar yi bàyyi ndax ba may sàkkal sama bopp am nañu wóolu da leen a wax bu ñëw na ngeen la woon nag te mooy ki nga wax yu am njariñ te gàtt daana wax ne tànk lu mu gaawee na ko na ko xaw ci aw yoon wax lu mu baree na ko amee daa dama ne ñaar ngi nii koy waaj ba koy muy xeex ak joxe daa dama ku la man ci moo lay man ku ngeen doon xeex daa dama nit fu tànkam di tege dafa bëtam jiitu loolu xikma ko am solo mooy nit dugg na ko xalaat wala xalaat bu mujj xalaat la jàpp loolu bind la boo ni war na ko mën a jële ci yàlla ñu ko yàlla fay li sëriñ Abdou Khadir seede ci moom sama dégg ko ci waxtaan koy ak sama sëñ soñ loolu rek doy na sëkk seede ci moom nee na dafa am yoo xam daal daa mel ni suñu borom du ko cëra jëpp ah sëñ Abdou Khadir moo ko loolu bu ci njëkk mooy xel lu rëy ànd ak fit ñaareel mooy tab bu ànd ak wërsëg ñetteel ba mooy daraja ñu ànd ak wër jikko yii war nañoo fexe ba roy ko nii moom ku woyofoon nag moom sëñ bi daal woyof lool kenn ku ne gis na màggal Tuubaa sëriñ wala sëriñ ñëw ñëpp toog ci kaw mu ñëw toog ci suuf belal gi léeg-léeg daana taw ba suuf si tooy mu génn jëm ci pénc woon am bu baax bu ab sées ngir takk ko su ak see frank laay suuf wala ko suuf suuf boo waxee mu ne yëre yi nii dañ ci suturaal yaram bi rek waaye yaram wi ci suuf lay mujj loolu yëpp nag kon bind la bu ñu mën a jël ci am na ku mas a falu saa yu ñu ko falee rek bu yàggee bu wàccee rek bëgg ñëw ci sëñ bi ngir sëñ bi ñaanal ko intervention ñu falaat ko ci yàgg sëñ bi ne ko ah jiw da ngay xam nag kaw kenn yàgg yàgg wàcc ci kaw yàgg yàgg wàcc ci suuf loolu ku ne na ko bàyyi xel kon yàlla na yàlla def dégg ak topp yàlla na yàlla may tur bu sell te yàlla na yàlla na jëflante ñun ci ak ñeew la ni moom yàlla na mu toll yàlla na yàlla jël ci yàlla bi sàlla ko julli koo xam ne dañuy dàqal ko bëggal dañu fi taw gëpp gëpp xéwal julli koo xam ne daf ñu fi aar ci nit ñi nga xam ne ay yàqkat lañ julli koo xam ne daf ñu fi jubale ndimbalal nit ñu baax aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum wa li saa'iril